waaw gaaw woote 77 Production le dans son domaine. ah am lépp tawfeex sëriñ bi mën a may. gën noo gàtt noo tawfeex sëriñ bi. taalibe bu mag bi ci mag bu mag ci élage Seydi Sow le grand communicateur religieux de la banlieue léppam Serigne Touba ko yaakaar mu ne Cheikh Ahmed Fadel نعمة شيخ فلو شيخ فلو لاي ابن خادم رسول الله نعمة شيخ فلو شيخ فلو لاي يا سبب سنمام جارة الله نعمة شيخ فلو شيخ فلو لاي يا سبب سنمام حبيب الله نعمة شيخ فلو Cheikh Barnoulaye yaay sa doom sunu maam Ahmadoulaye nee ma Cheikh Fallu Cheikh Barnoulaye man tay ma wayla li wajhillahi nee ma Cheikh Fallu Cheikh Barnoulaye ak am di baay Cheikh Fadimatulaye nee ma Cheikh Fallu Cheikh laaye rakk am di baay sëriñ Mbàkke madinaatul laaye neex ma Seex Fallu Seex Fallu laaye rakk am di baay daanak Seex Aliyun laaye neex ma Seex Fallu Seex Fallu laaye mag Seex Laamin Baara waliyun laaye neex ma Seex Fallu Seex Fallu laaye magi Cheikh Basiru Cheikh Abdoulaye neema Cheikh Fallou Cheikh Fallou Laye ayatullahi neema Cheikh Fallou Cheikh Fallou Laye Khalilullahi neema Cheikh Fallou Cheikh Fallou Laye nama Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay magi Cheikh Abdoul imaamul laay nama Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay magi Cheikh Saliou di yëkkati kaddu au nom du fédération Daayiratul Salaam bi nga xam ni suñu responsable moral mooy El Hadj Serigne Cheikh Oumy Mbacké mi Cheikh Mamadou Fadal Euh, ñu teew fi nag ànd fekk suñuy kilifa suñuy jëwrin sëñ As Diouf euh, suñu papa Babacar Seck ren tamit bis bi ñu am ci cër bu mat sëkk ndax suñu jëwrin suñu yaay suñu ndeyu daara soxna Daba Sarr dafa bokk ci marraine yi ma toggandook nii nag ci sama wet sëñ Modou Ndiaye mi nga xam ni képp koo nga xam ni yaa ne ci waañ wi di ci togg di ci def lu mënti doon moo la yilif doon sa njiit ci sama wet Moussa Koulibaly nga xam moom it kenn la ci biir fédération ak ci Seydou si sama wet tamit ma toog ceeg maam Cheikh Lamp Fall mi nga xam it kenn la ci njabootu sëriñ bi kon ñu ngi santaat yàlla bu baax Seydou nag li ñuy wax ci moom mooy euh, nit ki ni mu la def ni ni la def nu ko raw rek nga koy jéem a delloo Seydou la nit koo nga xam ne la bëggul defet nit koo nga xam ne la lu baax rek la bëgg nit koo nga xam ne la suñu sëriñ lu mu yittewoo suba ba ngoon suñu geesoo gis ko ci bay njortu ne sax moo ñu ci mën kon moom bisam mënuñu lu dul jóg taxaw ànd kook moom ci tàmbali ba ni muy jeexee tey ñaan nag suñ boroom yàggal ko te wéral ko ak képp koo nga xam ne njaboot nga bokk ci Cheikh du faadal Seydou ñaar dafa nekk ci moom muy ak ràññee akuk taalibe loolu nag ku mu nekk ci yow rek suñ borom dana yokk say mbir te dana la defal tawféex te noonu la alaaji Seydou si mel. Seydou xam nga luñ koy wax bàyyi nañ loolu yàlla. bàyyi naa la ak yàlla ku kontaan dana ko wax ku merket dina ko wax waaye ñun ñii dañ ko naan bàyyi naa ak yàlla saydoo gën ci ñun Seydou baax ci ñun bu tabaski jotee saydoo gën ci ñun bu koor jotee Seydou gën ci ñun bu safaan amee Seydou gën ci ñun Seydou daal yàgg rek lañ koy ñaanal ci barke yonent bi. di sant yàlla baax ci bis bi Seydou si di defal sëriñ Fallou dañu bokk ci sëñ Fallou bokk ci talibi sëñ Basiru sëñ Fallou kon nag bu ngeen ñu oowee lii dañuy sant yàlla baax a baax. di ñaan suñu bis bi yàlla na sax lool te yàgg te te te ànd wér di jiital nag ci nuyoo bi suñu sang bu baax bi sëñ Bassirou suñu Fallu di ñaan suñu borom guddal fanam lool mu yàgg suñu kanam yàgg ci ganam ak njaboot gi ak taalibe yëpp ba lépp lu mu yéene taalibe yi suñu borom defal ko lépp lu ñu ko yéene tamit suñu borom defal ñu ko rek ci barkeb suñu la waaye am na solo lool tubaarkàlla. ñu day kontaan nañu si Saawaane kontaan nañu lool sa néegu say jabar kontaan nañu say dëkkandoo kontaan nañu ndax boo defee cant gi togg li nga war a togg rey sa fukki nag jox say jeeg ku nekk ñetti bana jox sa waa kër baay jox sa waa kër ndey ñun amuñu dara luñ lay wax xanaa kontaan ci yow ñu ngi lay ñaanal loo mën ren yàlla na nga mën déwén lu ko ëpp ndax tey ñun de ba nga demee kër sëñ Fallou ba tey ak yokkute rek la ñu gis dangaa won sa yaay yonent bi man mi sa taawu ndey nga won ma yonent kon nag si saawaande loo yootu ne yàlla na nga ko jot bés bii yàlla na ko gën a mën di ko def ay ati ati ati at kontaan nañu lool ci yow dara manqué wu fi kenn du fi jógee di jëndi caaf di yëy añ nañu añ nañu démb reer nañ démb ndi xëy nañu ndekki tey la cant yi dara manqué wu fi sant di rendi di bernde kenn war a lu ko nag ku dul tontoo Seydou mi nga xamante ne moo war a lii lépp nit ñi añ nañ ba suur lekk gi bari na naan gi bari na ñu koy ñaanal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ak dooley Serigne Touba li mu mën ren bu déwénee yàlla na mën la ko ëpp ñu ko koy ñaanal Grand Seydou jàmbaar la ñu de rëccu ñu dëkkee suñu koñ bi ñu fi dëkkee ba tey barki sëriñ Touba liggéeyal sëriñ Touba bi dafa gën a yokk ndax chaque année mu jël ko tatagal ko màggal ko màggal ba ñëpp yëg ne tonton Seydou màggal na sëriñ bi. Seydou nag dañ ko ñaanal bisam bi yàlla nekk lu ko jig la nekk njiglaayam Seydou baax na yaru na bëgg na ndeyam bëgg na ay magam bëgg ay rakkam Seydou daal zéro faute ñëpp ko bëgg ni ñuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér-gu-yaram sutura sag bu dul sàggeeku barke sëriñ Babacar loolu nga koy ñaanal man mi magam dafa maa bëgg bëgg gënewuma mun na naaw sama borom kër dafa gaañu nag mu bàyyi ma waaye tabaski korite euh, euh, koor moo ci gën Seydou bëgg na ndeyam bëgg ñëpp ñëpp la bëgg Seydou bañu kenn barke salaatu faata ñëpp la bëgg maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram sutura sag bu dul sàggeeku tantam bii yàlla na ko yàgg yàlla ko yàgg may yàlla di may mu koy def diggante sëriñam bi maa ngi koy ñaanal nag man maay magam maa ngi koy ñaanal gudd fan rek laa koy ñaanal sutura sag bu dul sàggeeku barke yonent bi lu muy xaar yal na ko yàlla may mu saawaan baawaan. asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ngalaw bu ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi ngi sant Serigne Touba bu baax a baax sant maam Sera Fall di ñaane Serigne Mountakha mu yàgg fa lool ak xalifa maam Sera Fall ak kilifa diine yëpp xanaa di sant Serigne Seydou si bu baax a baax ndax mbir mi mën na ne commencé géejewaay la ko commencé Massasoudi wax dëgg yàlla ñu bokkoo ndoo juddoo ndoo yarandoo si benn koñ te lu baax rek la ñu xam ci sëñ sëñ Seydou. fonk ay waajuram fonk ay waajuram góor fonk waajuram jigéen ak ay rakam ak ay magam sëñ Sidy de dara ñoru ko lu dul sëñ Touba dara ñoru ko lu dul sëñ Touba waaw noo ngi koy ñaanal bu baax li man déwén ren boo déwénee yàlla man li ko ëpp waaye ku ku ne xam na ne sëñ Touba moom amu tànk ginnaaw waaw sëñ Fallou nag moom lu ko waay lebal ak ñi mawul bor daam pay moom sëñ Fallou ndax maanaam ni mu mel sëñ Fallou rek moo tax bisam bu dikkee day day saa su ca kanam rek la jëm ange billah bismillah inna wani yàlla jërëjëfe Serigne Touba jaraam maam Cheikh Ibrahima Fall lamp gàcce nga laama alaaji Serigne Cheikh Mbacke suñu yaakaar tey ak ëllëg ñu ngi siyaar ñëpp di tàmbalee siyaar bi suñu jëwrin jëwrin As jëwrin Omar Gueye ak jëwrin Moteer ci ci ndigalu sëriñ bi jaar ci ñoom moo tax ñu nekk fii di ko def nag at bu ne ànd ceeg gaay ànd ceeg suñuy jëwrin comme ñu ñu lim noonu rek di ñaan yàgg kaa fekkee nag ay at yu bari di ñaanal sunu sëriñ suñu yaakaar teeg ëllëg alaaji sëriñ Cheikh Mbacke moom du Mamadou Fadal suñu borom yàggal ko fi bu baax a baax a baax ba li mu bëgg liggéeyal maamam ak baayam ju baax ji suñu borom defal ko ci lu kawe njort waaw loolu daal lan ne woon dinañ ko ci dolli di wax ne ndigal nag moo nu fi indi waaw wër na sëriñ Fallou Mbacke ndigal dong moo nu fi indi muy ndigalu alaaji sëriñ Cheikh te liggéey sëñ Tuubaa rek ko ñor leneen ñoragul lul sëñ Tuubaa te sëñ moom am na am na sëñ Tuubaa moom maanaam moom day day kenn koo xam ni moom kenn xamut lu mu doon lii nii ñu ngi koy doog a def ndeysaan mu doy waar lool ba ba sëñ bi di taxaw. lekk yi neex na lekk yi mat na bëri na sa ndig neex na asamaan si ñuul na. bajannatullaahi mi ngi lay fekkee ibaadullaahi mi ngi lay sagoo islaamullaahi saggu lay nga fi diini fi diini laahi mi ngi lay damoo muriidullaahi ñëpp la amel cant Cheikh Fallu laahi neex ma Cheikh Fallu koy ngir fadlan minallaay bindal nga Bamba ay yoon kitaabu laay làq nga ridwaan ridwaanu laay làq nga sukran sukran minallaay nixma Cheikh Fallu Cheikh Fallu laay ziika su rajab Cheikh Fallu laay nixma Cheikh Fallu Cheikh Fallu laay xawsu nga di xutbu zamaani laayi nix ma Cheikh Fallou kalame kalame kalame walam tira bur yalla sadil lisani nabir janane ilaman nara sadil lisani yalla raman yalla raman amaan wasit baray in fallu bayu ben da da daira di kuta mayra ada nabi jawra jawra ni mayra da daira di kuta mayra di kuta mayra ada nabi jawra jawra ni mayra dafe alquran ju bari yàlla dolli jàmm nag ci réew mi waaye ñaanal nag Cheikh Mouhamadul Muntaxa jullit yëpp alaaji Seydou lool la def waaye mu yendoo berne xam naa loolu ca kanam laa koy wax sax mu yendoo berne ba mbedd yi foo romb nag yaa ngi takke nag kon alaaji Seydou bis bi muy defal sëñ Fallu bis bi yàlla nañ ca daje ngërëmu sëñ Fallu li gën a neex nag woote bis gis sa bokk yépp gis say nawle alaaji Seydou ñëpp ñëw nañ waaye may wax réew mi nag ni leen bis bi tàmbali na alaaji Seydou yendoon naa berne waaye nag dañoo bëgg a berne roo yi roo yi lu koy berne xasaayit nun xasida rek lañ am sëñ Bamba lu am xasida yi rek wa bi sahabaati summa al awliyaa imaar والهاملين من الأحبار يلاو وبصديق وبفاروق ثم بذي نورين ثم عبي سبلتين يلاو بالمالك ذي المزايا صافين أبي xanifatil ahmad al mahmud yalaaw billawxi wal xalamil maxfuuzi summa bi ar sikal azimil wa bil kursi yalaaw wa bi qur'ani wa bi tawriti summa bi ma daawuda jaa bihi wa ruuhu yalaaw لله aljuma tey kasu rajab la takku juddu bi laay dar ko mbar may bakko sëriñ Fallilu takku jundu lilaay jar ko mbar may bako alaaji fallilu alaaji fallilu alaaji fallilu aljuma day gasura jar la takku jundu lilaay jar ko mbar may bako nañ keroog daan dañu dundal alpal te jënd bi soo Sëriñ Baliilo Sëriñ Baliilo Sëriñ Baliilo abdullahi dar ko mbar may bakku sëriñ Fallilu nee nañ keroog nee nañ keroog daam dani daam dani buñ ko nampal fee jant bi soo buñ ko jox toqantal Yusuf Garag wax na ni Rasulullah ñëw na ngir juddoom gi doon na laay Abdullahi moom lay saa waxoon waxoon jurel garaw na buusa sëriñ Fallu bu bam defoon bam mën a waxte mi mur moo mën def keroog sëriñ Fallu mën a woor amul lor bi gax ta way naay maa loon nastaaku salaalaykal akramul xalaaq ba bis ba dellu seeñu daal di koy ngénte lamp ni liir bi dana toog bayaate sëriñ bu mag ba moo ko tuddee faadilun mu yor nga neel ya doon faridun kaamilun Cheikh Bamba ab junjam du mooy ni faadilu ba noppuy muy mof doolu mbaa muy jaayilu mënula am bu kenn werenteeg baaxam wallaay man xam naa Falilu moo di yaaram wàllu ndayam boo ca waa musóobe te ay sërif la ñoo woo bila mbirum Seex Bamba si layaat dina ko daari xal li waji laaye ak dara jey baayam ba doon laaye ak dara jey baayam ba doon laaye la taggang marsiyo ndax mu ma dara jaam njabootam gépp ngi ñuy toog mu wax leen ne ci bisub Seydou bi àndante moom ci bis bi ba bis bi jeex tàkk ndax Seydou kat sunu sëriñ sunu kilifa moo ma boole woon ak Seydou waaye bi ma boolee ak Seydou ba tey sama xol dafa sedd ci Seydou sama xelit dal ci Seydou bu baax ngir kat li mu àndee ak man muy jëmmi sëñ fallu rek ak taalibe gu mat sëkk mu wax ne Seydou moom xolam sedd na ci moom bu baax moom sëriñ Seexu mi Mbàkke moom sëriñ Fallou di wax ne lépp lu mu nekk lu ne fas yéene na Seydou miy nekk ceeg ak moom waaye wax na ne lu maam dina ko bokk ak alaaji Seydou Sey mi kon nag Mbàkke kàddu yooyu lan waxoon ne nan ko yëkkati ngir mu dugg ci sab nopp wasalaamaaleykum wa rahmatullah ak ndigal loolu Serigne Cheikh Oumy Mbacke Fallou wax tey sëñ Cheikh Oumy yàgg na ko wax ndax Serigne bi rek la am wax nga dëgg ñun ñëpp am nañu mbégte waaye lii li koy maye mooy asidqu fil mahabbati sayq dëggal ci bëgg sa sëriñ Seydou mii nag sunu xarit la sunu soppee la ñun ñëpp moo ñu andi waaye ñëpp xam nañ ni benn bëgg-bëgg la am muy Cheikh Mouhamadul Bachir kon Mbàkke yal na nga fi yàgg tamit sunu xol sedd na guyu bis bu yemoon fii bi nga yegsee Seydou dafa yuuxu jooy li tax mu jooy nii xam na ko danga koo sagal ci diggay bokkam sagal ko digg ci diggay xaritam tey ñëpp kontaan bis bu yemoon fii lépp mat na mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp seen tur ak seen sant di ci diisal Cheikh Amadou Bachir ibnu Cheikh Amadou Fadal ak njaboot gi yëpp Alaaji Seydou mbokk yaa ngi nii waajur yaa ngi fii ci baas bi ñu nga bokkal Sëriñ Tuubaa ngi ci baas bi ñu nga bokk say mbokk say waajur ñëpp a ngi ci baas bi ñu nga bokkal Cheikh ñëpp a ci baas kon li koy maye mooy fi nga teg sa tànk mm-hmm. sëriñ bi de moom. xam nga ne yëg la ak am ci yow cofeel moo tax mu ne ne yegg si fii ci yow tey jii loolu nag yow yaa ko liggéey ci kër ga ñun mën nañ koo seere kon yàlla na yàgg toog yàgg bi ànd Mbàkke Balla ñu ngi lay xamal daal ne mbokki taalibe yépp ngi fiy toog ci bisu Seydou bi loolu rek laa amoon lu ma ciy wax te xam ne ne eh, ñun ñëpp rek nañu nañu góorlu ci liggéeyal Serigne Touba ba lii mu am tey ñun ñu mën ko am Seydina Omar Bousso moo yor kàddu Cheikh Mamadou Mountakha fii ci géejawaay muy représentant Cheikh Mamadou Mountakha fii ci géejawaay mu nekk ñun fii ci géejawaay dix heures ba tey bam mu déggee ni Cheikh Mamadou Bachir mi ngi ci dëkk bi dafa ñëw toog ni duma dem fenn damay xaar ba sëriñ bi ñëw mu ngi nii moo ko teeru kon nag moom la jox kàddu gi bu ñu noppee ñu jox sëriñ bi bëgguma ko téye dama ni woon rek na ñëw ñaanal ma jërëjëf kon Cheikh Omar bismillah waaye sëriñ Mahamadul Basir ñu ngi lay seere ne jëmm ji nga xam ne danga fee ñëw fekk su ko fii ci ñun wax dëgg yàlla day defal na géej waaye loo xam ne lu jafe-jafe la ñépp ko ci war a sant ndax ñun ñi nga xam ne dañoo nekk biir Touba dëkk fa xam programme yi xew yi am ci yoonu murid yépp ni mu demee xam sëñ bii ni mu ñàkkee jot ak ni mu ñàkkee ab ab génn képp ku mu jóg ba di la seete rek am na am na foot am na lu tax ma defal ko loolu nag sëriñ bi wax nii léegi rek wax na ko nit ki wolof yi dañuy wax ne koo ne xamoon moo ko def ni mu la def dafa tax Cheikh Mahamadul basiir mii li tax mu yëkkati ay tàngam ñëw la sëriñ Tuubaa jàngaloon rek ab taalibe moom boo nekkee ci kanamu sëriñam danga naan nem bul am ak bëgg bul am looy bañ na am benn bëgg képp muy sopp sopp sëriñ sopp nag amatub yamukaay ndax suñu yaakaar Cheikh Ahmadul Xadim sopp gi nga xam ne bi ñuy xoolee xol yépp gis mu gën cee sopp Cheikh Cheikh yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu tax mu am darajee Xaadimu Rasuul kon nag Seydou lii nga am sëñ bi wax na ko léegi taalib yëpp dañ cee war a jàng bu kenn rek jàpp ne Cheikh Mamadou basiir moom Serigne Fall mi ngi ci biir baas bi waaw baax na waaye dañu war a tax xool ba xam lan moo war a tax mu toog fi sëñ bi sëñ bi bariwut fu muy génn de boroom war junniy baas ci biir yoonu murit mën ngaa wax ne benn wala ñaar du ko fa dem ay ndawam nag ak yitteem moo ko may lii kon Seydou dañ lay ñaanal fii nga teg sa tànk nga gën ci góor góorgóorlu bu baax jëmm jii nag mën nañu wax ne la Serigne Touba doon ñaan lay feeñee ci Cheikh Mamadou Bassir mii sori yeetan tayibatan tujjat googu moo xam feeñ ci Cheikh Mahamadou Bassir mii ma ne soo koo ëpp ay at waaye gën ko baax ak sedd ak oyof gisuñu ñu ko fenn waaye ku xam way juróom wa tedd wa Cheikh Mahamadou Fadal bu sëriñ bi mele nii wartu jaaxal kenn sëriñ Fallou de képp ku ko waayoo woon ku nekk ak ko ak noo mën a mel dana la waayoo jikko jooju nag la jël ci sëriñ Fallou moo tax mu ñëw seet Seydou mii kon Seydou ñu ngi lay sant baax bi nga ñu indilee jëmm ji tedd ji ci biir dugg géej waay gii nga xam ne man wóor na ma ne fu mu teg tànkam yàlla gërëm na ko yonent bi gërëm na ko Sëriñ Tuubaa gërëm na ko kon nag boo indi biir géejuwaay gi kuy ay gor as gor ku nekk war na la sant war na la gërëm kon seex Cheikh Mamadou Bassir ñi ngi la ñaanal suñu borom bu doon fan wi yokku la ak wér ba li nga yéene ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp samaam ngi di ji Cheikh Ahmadul Khadim ak Cheikh Mamadou Fadal suñu borom tabaaraka wa taala mat lu ko Mbàkke jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke jërëjëf sant naa la bu baax sant naa la bu baax sant naa la bu baax li tax ma koy wax xam nga xam nga bi may ñëw ci yow munoo am ñaar fukk maag Serigne Moussa Seck ñoo jébbalu ci yow. ci benn bis ci tisbaar yu fekk la ngay ga ci peyaay yi bii di géejawaay may jàng école ñu jékki-jékki bàyyi njàng mi topp la yaakaar la bëgg la dina fekk Touba Mérina dëkk bu ñu ko wax Touba Mérina nga ne ma mboolem ñooy jàngandoo de du la tane duñ la gën bi ma ndeg ak tey xam naa fi ma féete yaay sama ndey yaay sama baay yaa ma dimbali yaa ma taxawu man waxtu wi waruma fi woon fekk damaa waroon a faatu bu yàgg li tax ma koy wax xaar leen rek xam naa ko de déglu leen baax a baax barki sëriñ Falilu waaye moom mii moo ma dimbali te dimbalik biir nga ma dimbali dimbali ma dimbalik biti ndax ni nga teddee ak ni nga baaxee ak ni nga yiwee ni nga bëggee ni nga bëggee taalibe yi yàlla ba ak ni nga leen di sagale ak ni nga leen di taxawoo mbàkke suñu Ahmadou doy na sëkk sëkk sëkk sëkk ndax xam naa nga toll sëñ du Karim doy na sëkk xam naa fi nga toll Cheikh Modou Fadal mi doy na sëkk xam naa fi nga toll ëpp nañu sax sëñ Abdou Serigne Diop Fallou rek doy na man yow laa am yow laa bëgg bëgguma kenn ku dul yow fon ma gis ci àdduna ak yow rek laa bëgg yow rek laay liggéeyal sama àdduna ak sama alaaxira yow rekk la Mbàkke danga maa bëgg dimbali rek a tax nga ñëw waaye wallaahi mu doon ngaa toog boo ma wowoon téléphone day doy sëkk sëkk sëkk man xam naa xam naa xam naa danga ma bëgg dimbali képp képp képp képp te danga ma dimbali moo tax nga ñëw ak yow ma sa fay waay Baye Bass yaa baax Baye Bass yaa baax Baye Bass dimbali nga ma lool sama yaay ngi ni toog sama yaay sama yaay ngi toog sama taawu yaay ak samay mbokk waaye xam nañ ne yaa ma dimbali ñoom de xam nañ ne yaa ma dimbali ñoom ñëpp a ngi nii li may wax xam nañ ne yaa ma dimbali Mbàkke man su ma la santul gorewuma Mbàkke lu ne lu ne lu ne te Mbàkke baaxuma yow yaa baax yaa gën ci àdduna Mbàkke dimbali nga ma lool kon may leen ma rek ma sant ko ndax lii yombut te man de xam naa ko jëmm jii toog billaahi la si bu yónni woon kenn képp muy suñ seexu naa Mbàkke doy na ma sëkk man xam naa fi nga toll Mbàkke yow say jéego ak say tànk fu mu dem ba nga ñëw dimbali rek Mbàkke jërëjëf may bas man de sama àdduna ak sama laaxira yow rekk laa ko jébbal sama bët yi yow rek laay xool bañ na ko ku ma bëgg a laal sax ak ma ne ma bay barke bay Basiiru Mbàkke Fadilu man loolu laay waate su ma la ko waxee jeex na sama àdduna man su ma la nee barke bay Basiiru Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Fadal doomi sëriñ Falilu xamal ne sës naa te man yow rekk laa bëgg ku ne mën naa laa bàyyi ci àdduna ba mu des sa jëmm ji wax naa ko ñépp dégg ko yow rekk laa am yaay sama ndey yaay sama baay yaay sama sëriñ yaay sama yaakaar adduna ak alaaxira ëllëg loo fa amul bëgguma ko man Seydou barkeb sëriñ Basiiru Mbàkke Fali loo amul bëgguma ko bëgguma ko xooluma ko soxlawuma ko man yow rek laa bëgg billaahi yow rek laa bëgg yow rek laa am te dama la koy séeral ni yow rek laa bëgg laa am Mbàkke jërëjëf maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm lii dafa rëy lii dafa rëy lii dafa rëy bay bas dimbali ma rek dee ma ñaanal pour loolu yónni rek say seexu naa doy na sëkk doy na sëkk maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm jërëjëf Mbacke wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin wa ala wa sahbihi wa mawala asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi fi teew sëriñ bi mu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam waaye di teg nuyoo bi ci loxol Seydina Omar Bousso mi nga xam ne moo teewal sëriñ Touba ci gox bi jaar ci moom di ñuy mbokki taalibe yi fi teew yépp ak mbokki jullit yi ak mbokki dëkkandoo yi di sant bu baax ci jataay bi di sant bu baax ci teew gi kàddu yi nag sëriñ Seydou sëriñ bi nee na dégg na li nga wax bu baax jàpp na ko bu baax itam ni nga ko waxee ne yow xam nga moom xam na mu wax ne fa nga jóge ba fi nga agsi lépp sa dëggal rek moo ko waral bu fekkoon ne ba nga ñëwee jokk danga jaarul ci yoon wa nga jaar kon mën naa am doo agsi fii waaye mu wax ne boobaak léegi mi ngi bëgg yàgg mën na fanweeru at waaye bi bu set saw doxiin ak saw doxalin jëme ci moom day gën a yokk sa cofeel ci moom day gën a yokk loolu ñëpp yëg na ko ak cofeel diggante ab taalibe akub sëriñ nag lu ci ab taalibe munta am loolu dafa amul waaye mën na ci am lu ne te sa cofeel ci moom moom xam na ko njaboot gi yëpp xam nañu ko ndax ñu ci bari dañoo ñëw fekk la ci kër gi waaye man mii nga xam ne maay wax nii damaa jóge daara ja ñibbisi fekk la fa ngay def saa soo xëyee danga nga bale kër gi ba mu set wecc kër gi yëpp bu yàgg def ko Touba def ko Touba mbir def ko fépp te noonee boobu ba tey dara wàññi ko ci xanaa di yokk ab taalibe nag lu mu am ci ab sëriñam rek daa fekk moo ko may boppam ci paspasam ci paspasam ci sàkkoom ci dëggoom ak ci dëggalam sëriñ bi nee na loolu nga xamee ko noonu mu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay gërëm bu baax ci lépp di la sant bu baax ci lépp di yàlla suñu borom ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal yàlla nga gudd fan te yàlla nga àggale sa sago daanaka kàddu gi wax ji mooy tontu li ndax yow bi nga koy wax ñi la xam xam sëriñ bi xam nañ ko ñëpp ay seede lañ ci ñëpp ay seede lañ ci nga xam kër ga ñëpp li nga wax ay seede lañ ci kon loolu moo waral mbir day am firnde xam nga ne. njaboot gi it xam nañ ne bokk yi xam na ne sëriñ bi fi li muy dem fu mel nii bariwul mënu ko mënewu ko it baaxoowu ko waaye itam nag gor la boo xam ne ginnaaw bi nga ko jàppee sëriñ bi da nga ko def muy waajur mënoon naa bañ a jëflanteeg yow mënoon naa bañ ñëw ngir doon gim doon sab sëriñ ndax loolu bor nekku ci seen diggante waaye waajur la jàppe moo tax loo nekk dana ci nakk yow neex ndax ni nga ko ndax ni nga ko taxawoo ni nga ko def ak ni nga ko jàppe ak ni nga ko féetewoo ba àdduna bépp xam ko loolu jaadu na boo ko defalee nit foo nekk loo nekk mu nekk caagi li fekk mi ngi doon ci loo war a nekk te alhamdulilahi laa alamin da ngaa woote rek ngir sant Cheikh Mamadou Fadal te loolu ku ko def jàpp na ne moom nga ko defal kon fu ñu koy defee rawat na nga di ko def yow dana dikk teew si biir ñaanal la yàlla taaral jataay bi wan ñëpp ni li ngay def ànd na ci kon daal sëñ bi mu ngi lay gën a soññaat bu baax di soññaat bokki taalib yi fii teew yëpp ñu gën a fonk taalibe gi gën gën koo dëggal gën cee dëggu xool sëñ bi bañ a xool leneen ginnaaw bu ñu utilee suñu diine fonk jaamu yàlla fonk liggéeyal sëriñ tubaa te fexe fu ñu nekk doon sagub sëriñ bi kenn ku ne ci nga fexe foo nekk doon kuy sagal sëñ bi ci say melokaan ci sab yar ci sa fonk jaamu yàlla ci sa njub ak ci say melokaan loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne sëñ bi nee na woon na ko na ko na ko jotali mu ngi lay santaat bu baax di ñaan yàlla nga gudd fan yàlla nga wér yàlla nga àggale àggale sa sago barkeb Cheikh Mamadou Fadal ma ngi jégalu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Seydou sëriñ bi nee na jërëjëf. sëriñ bi nee na jërëjëf. yi ma njëkk wax. nee na yetti jërëjëf yi ma njëkk a wax. nee na wax naa ko. nee moom it wax na ko. xam naa ne sa sa na xam na ne sa yetti jërëjëf yi nga wax yëpp fa mu àgg ci sa xol. yetti ko nee na yetti jërëjëfam yi fekk na ko fa mbaam sax mu weesu ko. ndax ba ñu àndee ba tey. ndax ba ngeen àndee ba tey. nii ngay waxee. nii ngay waxee. nii ngay jëfee. nii ngay jëfee. ci sa lépp. ci sa ci man moom. kon jërëjëf. kon jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. yàlla na ma la sëriñ Fallu fayal. nee na yàlla na la ko sëriñ Fallu fayal. yaag mboolem ñi nga àndal. yaag mboolem àndal. te sëñ Fallu rek tax. te sëñ Fallu rek tax mboolem ñi nga àndal sëñ Fallu rek tax yàlla na la ko sëriñ Fallu fayal. nee na xolam seet na bu baax a baax. sa xol sedd ni nee na yàlla na sa sedd ni sa xol ni xolam sedd ci sëriñ Fallu ci ci yow ci yow ak ci mboolem nee na sant na bu baax gërëm na bu baax gërëm na bu baax mi ngi ñaan fu mu toll sa xol yegg ci sëñ bi fi sa xol yegg yi sëñ bi sama borom mottali ko bu sa borom boromam mottali ko bu baax a baax a baax fa nga bëgg mu yegg fa. fa nga bëgg sa xol fa. sëñ bi yeggal ko sëñ bi yàlla na ko fa yeggale. ci lépp ci lépp. yokk la bu baax ba ñëpp gën laa xam. ba ñëpp gën laa xam. gën laa dégg gën laa dégg. te gën laa gis te gën laa seen. te gën laa gis te gën laa séen sant nañu yàlla bu baax sant nañu yàlla bu baax. bi nga xamee ni bi nga xamee ne. nii nga jàppee sëriñ bi. nii nga jàppee sëriñ bi. te jaar ko ci man te jaar ko ci moom. ñëpp gis nañ ko. ñëpp gis nañ ko. ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko. sant naa bi nga xam ne it. na sant na yàlla it bi nga xamee ne. noonu ngay doxee. noonu ngay doxee. ñi ko gis ñëpp rafetlu nañ ñi ko gis ñëpp rafetlu nañ ko. jërëjëf jërëjëf. xorom sedd na bu baax. yàlla nañ fi yàgg a teew si. si. te fekk fi bokk yi. te fekk fi bokk yi. ak bokki taalibe yëpp. te fu ñu toll nii amul dolliku. te fu ñu toll nii amul te bañ a wàññi ko te bañ a wàññi ko faaw. barkam Cheikh Fall jërëjëf Mbacke jërëjëf. yàlla ko teewaat na ngeen déwén. tànnal leen te ngeen fas li ngeen bëgg. amin mu fekkee déwén. amin amin ok. maa war a joxe reer yëkk bee taxaw dañ koy yóbbaale muy say añ ak say reer. Mbàkke jërëjëf yàlla na fi bismillah tàllal leen sëriñ bi ñaan rahmatullahi nehma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay nehmatullahi rahmatullahi nehma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay himnu xaadimu rasulullahi nehma Cheikh Fallou Cheikh Fallou lay yaay sa dam sunu maam jaaratul lay nee ma Cheikh Fallou Cheikh Fallou lay yaay sa dam sunu maam Habibul lay nee ma Cheikh Fallou Cheikh Fallou lay yaay sa dam sunu maam Ahmadul lay nee ma Cheikh Fallou Cheikh Fallou lay man tay maam الله لوجه الله نعمة شفلو شفلو لاي حكي أمني باي شيخ حدمات الله نعمة شفلو شفلو لاي حكي أمني باي شيخ مدينة الله نعمة شفلو شفلو لاي رقي أمني باي دانك شيخ علي الله نعم شفل شفل لاي من شفل من بار ولي لاي نعم شفل شفل لاي من شفل سيرو شيخ عبد الله نعم شفل شفل لاي من شفل عبد الله آيات الله نعم شفل Cheikh Fallou Laye magi Cheikh Abdou Samadak Khalilou Laye nema Cheikh Fallou Cheikh Fallou Laye magi Cheikh Souaïbou Taqiyou Laye nema Cheikh Fallou Cheikh Fallou Laye magi Cheikh Abdoul Khadir Imamou Laye nema Cheikh Fallou Cheikh Fallou Laye may Cheikh Saliou miftaaxul laay neex ma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay may Cheikh Murtada rijaalul laay neex ma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay may soxna muslimatoog muminaatul laay neex ma Cheikh Fallou muy tawfeex ju rëy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 woote 77 251